salaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu dalalaat fii kii di Gaston Mbengue kenn du ko présenté kenn Sénégal ndax ñëpp xam nañu moom mooy kan. Mhm. ñëpp xam nañu ci lan lay yëngatu waaye rek dinañu fàttali ne xaritu président Macky Sall la acteur politique la boo xam ne dafa am audace de ses idées muy joxe son ci lépp loo xam ne dafay concerner réew bi rawatina ci mbirum politique monsieur Mbengue lay nuyu di la dalal fii ci senego point com. waaw Kanté maa ngi lay fay di nuy yooyu tam di nuyu waa Sénégal yëpp di leen féddali sama kóolóor ak yéen rek parce que yéen moom comme ni nga ko waxee rek moom sama kër la d'ailleurs kër sénégalais yëpp la yéen amu leen euh, lu ngeen di xàjjalee xàmmeewu leen opposition pouvoir rek nit ku baaxal nit ku bon ak xàmmeewu leen kenn sénégalais daal ngeen xam te noonu ngeen di comporté woo. d'accord ñu jëm ci élection locale coow li bari lool mu bari lool it. ci sa camp bi nga xam ne moom ngay dimbali te nga fës si loolu it tamit mooy benn mbokk yaakaar nan nga ko jàngatee déjà. waaw euh, élection yi moom mi ngi ñëw euh, xumb na metti na te it euh, tiit tiit sax jot na parce que man dama ci sax tiit parce que nit ñi ñëpp a bëgg a ñëpp a bëgg jiite ci àddina ñëpp mënunoo jiite. Euh, le président Macky président de la coalition doon na leen jéem a faciliter tâche bi mm-hmm. nii pour ñu bàyyi ko mu désigner désigner na am na ñoo xam ni aussi di suñu seen bopp ci désignation yi ñu def seen liste parallèle mm-hmm. et que loolu aussi kenn mënu ci génne kenn ah parce que nag attends on est dans un pays démocrate et que nit ñi aussi Euh, du moins man de man mënumaa def lu ma gëmul d'ailleurs euh, sama sama deret sax du ko nangu am na ñoo xam ni ranger wu nañu derrière les candidats du président am na ñoo xam ne xëy na it gis nañ ni ñoom président daf leen tapé ñu dem def seen liste bopp parce que yaakaar nañ ni ñoom ñoo war a amee foofu ñoom la waa dëkk ba bëgg te it li nu wax itam xaw na yenu maanaam parce que ñun président bi jëluñu mais suñu gañe woon it mel na ni benn bokk yaakaar gañe ndax ci loolu bokk ndax ci kanam lañu bokk mais c'est que nag Sénégal xam nga léeg-léeg naa feq geeg seytaane gi day bari ba nit su defee dara sax ñu féetale ko feneen mu mel ni dañoo dañuy euh, désavouer président bi wala yooyu or que ñi koy def xëy na xalaatuñu loolu et que nañ fàttaliku démb aussi ku nekk da ngay am loo naqari nit ñi xool la noo am le président Macky Sall en 2008 bi mu amee jafe-jafe ak le président Abdoulaye Wade dafa dem. Hmm. mais dafa génn carrément génn carrément dignement dem de non pardon dafa dafa dafa dem bàyyi léppam non ah. booba du woon choix affaire choix hmm. booba dafa am lu ñu ko bëggoon a teg lu ñu ko bëggoon a jiiñ fu ñu ko bëggoon a dëkkal gis boppam génn bàyyi dem bàyyi leen ak ba tànk yi mu ko takkaloon yépp mu bàyyi ko ñoom dem des ak yàlla wuti yàlla jox ko bokkul ak bii bii affaire wu affaire wu la bii ñuy xuloo wunoog président Macky Sall xuloo wunoog kenn xëy na seen population yi ñoo leen imposer loolu peut-être wala seen alliés yi parce que nag man tu sais man bokkuma benn partie man mais Macky Sall la bokk Macky Sall sama xarita ma respecté ko mu jaral ma sonn ci moom mais it dama respecté sénégalais yëpp nag aussi. mais nag tamit bu la président dénkee ndombu tànk. Mhm. nga nekk directeur général par exemple. Mhm. wala nga nekkoon sax ancien ministre de la république. Mhm. président Macky Sall joxoon na ko bu demee ba toll ci mel ni électoral élection locale. élection yoo xam ne xam nañ ne waa gox bi la. ak seeni population waaye soit président de la xam nga contradiction yi dafa baax ci àddina. le président non contradiction dafa baax ci àddina te président Macky Sall est démocrate xam nga gars yi ñoo koy dëkkal bu mu dëkku rek mais président Macky démocrate la ci contradiction aussi dafay baax léeg-léeg parce que léeg-léeg it euh, président Macky nit rek la mën nañ ko juumloo mu juum ci ay choix parce que président Macky Sall mënu la xam lépp aussi malgré dañuy wax ni euh, c'est le plus informé euh, renseignements généraux yi ngi fii yëpp mais renseignements généraux mooy lan renseignements généraux yi euh, bon ils n'ont pas le monopole de la vérité hein. Mm. de la de l'information juste donc juum ma na am mm. ci nit ñi donc nit ki suy juum kilifa suy juum da nga koy juumloo parce que ñi la wër ñi nekk sa wet am na ñu lay informer yoo xam ni dégg nga ñemewuñ laa wax dëgg dafa ne ni su la waxee dëgg nga dàq leen ba nu def loolu ay début man du man président Macky Sall d' su ma président la mais dama ko considère comme sama rak su ma ko mënuloo wax dëgg je préfère noppi. du ma ko wax loo xam ne mukk. waaye président moom deful def na ay choix am ba pare. waaw defe naa dafa dafa dem ci à partir des yoo xam ne jàpp na ne bu toppee yoonu woowu la mën a. mais loolu mais loolu mooy indi. gën loon rafet laa wax ñi nga xam ne dënk na leen ay ndomo tànk benn ñu nekk ci mm-hmm. pouvoir bi. Mm-hmm. di dérouler. Mm-hmm. par la la République. kii laa désigné parmi vous gën leen jekk. mais nag mais nag xam nga loolu nag entre nous entre nous loolu kon dootul démocratie. loolu loolu su amee dootul démocratie. parce que nag président de la république aussi dañ fàttaliku nii Ablaye Wade a tout fait pour lui ba mu ko ko Ablaye Wade bëggee def loolu loo xam ni euh, du yoon daf ko fa bàyyi. te pourtant le président Ablaye Wade euh, a tout fait pour lui papaam la donc euh, il faut pas ñuy dugg ci domaine boobu. parce que day mel ni kon dañuy dellu démb wala noot nit wala yeew nit wala nit ki soo ko joxee lii rek amatul droit à la parole. mais le cas de Ziguinchor est-ce que jàpp nga le choix boo xam ne porté na ko mais fekk si waat nga moom président nit rek la da mën nañ ko juumloo dañ koy juumloo information yi mën na nekk ay erreur parce que tey ñëpp ko waxandoo ni Casamance choix bi baaxul xëy na baax na nag xëy na moom man li ma koy ñaanal rek li mu def lépp yàlla na ko ci yàlla jàppale ba mu nekk. ba ñoo population yi wuyu ko ci loolu mu gënil ci Sénégal man loolu rek laa koy ñaanal mais am na ay choix yoo xam ne def na ko population yi aussi ay nit lañu comme moom am droit à la à la science à la réflexion dégg nga ñoom it seen gis-gis te yàgg am na ci ñoo xam ne yàgg nañ ci politique am na ci ñoo xam ni ñoo ko ci jiitu sax euh, par exemple boo demee pour le cas de Matam gis nañu benn gaal boo xam ne Pastef walla sax Yewwi Askan Wi ñoo ko investir muy xëyee rek dugal ay foo procès-verbaux ay en tout cas ay lettres yu baaxul ba ba finalement ñooñu seen liste jàllul lu mel noonu am na fa la ca Medina Yoro Fula ki nga xam ne tamit waa Yewwi la fi nekkaloon dawa ak liste yi yi mel noonu daal. kooku yooyu c'est des actes de lâcheté. man man loolu ku ma ko defoon man. soo ñëwee ma dàq wala dinaa la weer ba pare dàq la nga ñàkk lépp des actes de lâcheté kenn waru ko accepté bu matam bi waa ji après dafa gor c'est des actes de lâcheté man même su yow aussi su dëgg jotee dama koy wax man ko ku su ñëwoon ci man bëgg maa jébbal kayit yooyu dama koy dinaa jël kayit yooyu ba pare delloo ko seeni borom dàqwaa ji parce que ñooñu kenn warul leen di cultiver ci réew mi kenn warul leen di may parce que loolu baaxul sax suñu doom yi baaxul ci génération politiciens yi ñuy ñuy vivre yu mel noonu ay nit wóolu la investir la nga amee kayit ya nit balaa veille ou deux jours avant nga daw ak cachet yaak yépp daw jaay sa bopp loolu affaire jaam la le président Macky Sall bëgg sax genre yooyu xëy na nag moom du ko def loo kenn mais ay nit ñoo koy def pour wut pour faire plaisir au président mais président acte yooyu bëgg ko président bu bëgg nit ñu baax nit ñu honnête nit ñu généreux loolu la président Macky Sall bëgg mais di former ñu ñu former loolu ay sénégalais ay nit ñu baax ngay former ay traîtres ak di pousser les gens à être traîtres à être des voleurs à être des jàmm kooku kooku président Macky Sall lu muy doy nit ñooñu te ñooñu tôt ou tard dëgg rek ay mujj ni mu waree ñooñu noonu lay noonu la leen di waree parce que workat workat rek la Dakar Amadou Ba ak euh, Abdoulaye Diouf Sarr finalement y la guerre. y la guerre et heureusement wax boobu kenn waratu ko sax wax Amadou Ba a été promu euh, euh, coordonnateur national. Mm-hmm. de l'APR. Mm-hmm. tey suñ ñu doon wax tey daanaka mooy patron APR. donc ku la wóoruwul wala ku yéenewul jàmm du la ko def. Mm-hmm. donc ñi doon wax ay Macky Sall. Amadou Ba dañu am euh, détaillement la yooyu ñooñu Macky Sall du du jël kuy ku koy kuy def ay détaillement wala ku ko ku mu wóoluwul di la jox loolu partem bi moom moo ko defar moom moo ko monté kon ku mu jël ba def la coordinateur national waxuma la régional mais national am na fu mu la teg te it Amadou yi di nit ku baax parce que tey su nekkoon fii di xëccoo wala moom di def liste parallèle ak yooyu mën na yàq lu bari mais nit ku dégg ndigal la nit ku respecté le président Macky la et président Macky Sall yëpp xam ko malgré xëy na boole yi ñu leen doon jéem a boole parce que Sénégal dañuy fekk euh, ñaari nit ñuy dem ñu boole leen fekk jëkkër ak jabar boole leen fekk ay frères yu bokk ndey bàyyi ñu boole leen sa n'a pas abouti donc yàlla na leen yàlla jàppale ci seen euh, dynamique boobu. ak seen ànd boobu. Diouf Sarr il est là c'est un Dakarois il a le droit de demander. il a le droit de demander wane na ni dafa bëgg mairie Dakar président yàgg na am ci moom confiance moo tax mu def ko ministre defati ko ministre mu gañee fi maire yi Yoff kon su ko joxee su su amee yaakaar ci moom c'est c'est normal c'est normal maintenant Dakar dana métti dana métti trop c'est à maintenant à l'APR de soutenir Diouf Sarr Diouf Sarr c'est au président de vraiment le soutenir aussi ñu pousse def ci seen force yëpp parce que Dakar c' est pas une petite chose Dakar c' pas une petite chose yëpp fii la donc tey victoire u à Dakar victoire u Diouf Sarr victoire u APR yëpp la donc ñëpp dañu war a xam noonu ca xam naa ni Amadou Ba dana ci investir président dana ci investir donc. Euh, ndax am na ñu mais dana métti. na ñu ne bu ñu gagné Dakar par exemple Mamadou Saleh Saxarit wax na ko fii nee élection yi nii mooy déterminer est-ce que président Macky dina amit troisième mandat dina wuti nekk pendant. nekkuma ci boobu ça n'a rien à voir non non non ça n'a rien à voir mandat président Macky su ko neexee su ko ko constitution mayee mu wuti ko su fekkee ni doy na ko wala su fekkee ni moom am xam na ni mi ngi kattan gi ba tey pour wuti ko pour égaler. li mu yéene Sénégal. kon ci président Macky Sall lay dépendre mais ci ay résultats élection kooku c' même euh, c' est même gauche. que wax ni élection yi prix genre primaire lay pour présidentielle d' ailleurs gis nga coow li mu fi indi j'aime bien Mahmoud Saleh sama rakk la sama xarit la sama lépp mais am na wax yoo xam ne ci moment yi kenn waru ko wax ndax day mel ni soo ko waxee sax day mel ni président ko wax ca président yooyu du yooyu doy waxam président lu mu xalaat da koy wax keroog ba mu xalaatee nii wii nii noo daf koo wax ñëpp dégg. parce que talul loolu booba. mais est-ce que ko. kenn yónniwu ko mooy li ma la wax. non non non non non non non man loolu duma ci wax. parce que fekkee wu ma fu ñu ko yónnee xalaatuma ko tooguma ak président waxuma ci ak Mahmoud Saleh xaw ma lu ma xamul duma ci wax mais de façon du lu waxu pour même par respect lu waxu président Macky Sall Sénégal ko bëgg Sénégal ko fal deux fois. tey su ko constitution mayee droit à un troisième mandat Sénégal da koy falat une troisième fois si jële fa du débat non du débat loolu du debat d'ailleurs ba mu ko waxee nit ñi tontu commencé moom bëgg fi ni débat booba leen ci mais du débat le président Macky Sall Sénégal lay waxal sa li muy mi ngi liggéey li muy liggéey nii euh, bilan la su paree fii fii ak fin 2023 nu gis beneen Sénégal su boobaa sénégalais yi ñooy wax ndax danañu falaat Macky Sall du duñu ko falaat parce que moom de façon mu ngi liggéey soo génnee ci biir Sénégal c'est que communication bi sax a doyul xaaral tuuti ba terre bi gën euh, démarrer en fin décembre ku dem ku ku ku ak BRT beeg yooyu non non non non non lépp yàlla dina ci def lépp parce que de façon il a osé entamer beaucoup de travaux yoo xam ne depuis 1960 kenn entamé wu te soo ko soo gisee le président Macky Sall bitim réew nga xam ni c'est une personne respectée moi j'étais à Dubaï j'étais aux États-Unis c'est une personne respectée par les grandes puissances dañ ko bëgg dañ ko respecté soo xamul sa waay nag ee eh nga koy wooyee ñun Sénégal ñoo mënula Euh, defal lu baax suñu nit ñun ñoo mën a suul ndaanaan Sénégalais yi dañoo mën a suul ndaanaan. fii ak 3 mois defe naa ci élection yi lañ dem forcément. Mhm. ndax janvier la euh, violence bi déjà tàmbali na gis nañu Doudou Ka Ousmane Sonko foofu ci Ziguinchor am na une fois mu amaat une deuxième fois ay blessé bu jënd nañ dem hôpital euh, comment est-ce que déjà nga jàngatee acte boobu noonu surtout que souvent Ousmane Sonko moom mooy ñëwaat quand on parle de violence. bu yóbboo nit ñi teg ko ci suuf parce que Kandé su ma la reyee tey sama mbokk la rey soo ma reyee sa mbokk nga rey. Casamance ñun ñëpp ay mbokk la. ay mbokk la moom Sénégal sax Sénégal ñëpp ay mbokk la léeg-léeg prison bi ay innocent yu bëri nga fa àllaaxira ay innocent yu bëri nga fa ñu nu rey ci erreur lu ko fi jar idée yaa ngi fi télévision yaa ngi fi site yaa ngi fi presse ngi fi nan campagne nan joxe nan convaincre nit ñi ci ay wax. su leen faree ñu jéem a réaliser nag leenu convaincre nit mais taxaw di jamanteeg di xeex ak di saagaanteeg yooyu vraiment nit ñi dee fii loolu moom c'est pas c'est pas Sénégal c'est pas la bonne chose c'est pas la bonne voie. d'accord ñu nekk tamit ci contexte boo xam ne euh, politique la post électoral dugguñ ci ay campagne euh, Barthélémy Dias le juillet bi passé lañu ko convoqué woon loolu rendez-vous pour le 10 bi di ñëw. Euh, beaucoup jàpp ne pouvoir bi encore mooy jouer le jeu ah, mais nit ñi dañuy wax rek xam nga Sénégal lu nit wax ñu ne lii tax ñu def ko mais je pense que pouvoir bi amuñu jot googu xëy na justice le temps de la justice c'est le temps de la justice ñoom ñoo xam nan la ñuy organiser seeni audience et tout ça mais xam nga yu mel nii nag soo amee justice bi sax day sànn da koy yërëm parce que lu mu def ñu defee ni pouvoir la. wala contexte bi la mais man gëwuma ni contexte bi la et puis y' a ñaata yoon leen fi convoqué Barthélémy Diaz renvoyé ko pourquoi ñu bëgg xalaat ni su demee rek dañ ko war a euh, éliminer ci élection yi waruñu ko xalaat il faut être positif dans la bu ñu xalaat yooyu yëpp surtout ñun su fekkee ni il net il est clair et tout ça y' a y' a ku tooñ nag wala justice nag moom man du ma dugg ci affaire am dama ko respecté ba mais je pense que. parce que convoqué nañ ko dans la semaine rek mu coïncider ak des policiers yi je pense que vraiment euh, amul amul amul amul incidence. te hmm. bu ñu ko ah dafay perte liste bi. suñ ko est ce que waaw mais suñ ko am bi nga xam mais suñ ko condamné nga wax mais ku ñuy condamné day fekk nga def lu tax ñu ko la. mais su fekkee waaw mais dama au cas où amu ci. ou soit da ngay nekk euh, coupable wala nga nekk innocent soo dee innocent dañ lay bàyyi soo dee coupable euh, li loi bi wax lan lay teg te moom il toujours dit qu'il n'était pas coupable na ses avocats yi tout le monde il n'a qu'à continuer à se mais bul dem rek jiital nii man su ma demee ñu mais imaginez une élection boo xam ne dans une capitale sans l'opposition ah représentative mais loolu dafa gàtt loolu garaaw lay doon mais waxoon nañ ko ci élection présidentielle yi xam nga Sénégal dañu bëgg bu bruit rek dañuy wax élection présidentielle yi loolu la wax évacué ñëpp ba euh, choisir su cinq candidats yi war a janoo mag quatre candidats war a janoo Macky Sall ñuy cinq loolu passé na coow coow coow xam nga Sénégal nit ñi dañuy wax rek ay lii su amee ñu taal dëkk beeg lii su kii su duggee kaso maanaam moom dugg ci kaso beeg yooyu yëpp dañuy wax rek gars yi taluñu ko gars yi duñu ànd ak kenn di taal dëkk du ànd ak kenn dugg ci kaso. mais ñaana lu ak ma ko bar Barth sama jarbaat ñaan lu ma ko loolu j'aurais préféré mu bokk ci élection yi même suy perte mu perte ci élection yi ñu gagné ko démocratiquement su koy gagné. ko daanee na dem wuyu ji. waaw ah suñ ko daanee day wuyu ji mais est que danañ ko daan parce que moom il dit que il pas coupable man du taxaw di wax ne nit ki dañ koy daan comme ça rek sama xalaatu bopp. Hmm? parce que nit ñi na nekk benn dama lay jox benn exemple ci question bi nga waxoon sànq xoolal tey par exemple ku yaakaaroon Kaffrine dana am jàmm entre Ablaye Sow ak Ablaye Wilane les deux Ablaye la tey ma nga ne am na jàmm ñu nga ànd di def seen i campagne di def seeni i porte à porte ñu nekk ay frères seen papa yee daan amul benn problème parce que coow yi su dee la veille ñëpp dañuy coowandoo mais su demee ba dëgg taxaw nit ñi suñu raisonnable rek mën a ànd te ñu bàyyi rëy gi xam nga nag euh, le président Macky Sall moom ban ko ba tey mi ngi liggéey liggéeyam mais ñi mu àndalit toujours dama koy wax du ma tàyyi di ko wax il faut ñu bàyyi rëy ubbi seen xol yi mën accepter nit ñi nit sax mën laa tooñ nga baal ko ubbi seen téléphone yi ah. ubbi sax seen xol yi non non ubbi seen xol yi nit mën naa nekk sa ennemi tey ëllëg le président Macky Sall def choix li nga mën a jàppale président Macky Sall ñeneen ñu bëggoon doon postuler nga dem yow du ñàkk jom du dara mais ouverture ak générosité la nga dem fekki leen doo doo leen xaar ñu ñëw yaa lay dem humil ànd ak humilité nga dem fekki leen xam ni yow président Macky Sall la tànn mais gënoo fii gënoo nit ñi mm-hmm. nga dem fekki leen waxtaan ak ñoom am ñun ay gor lañu mm-hmm. gis nga nag man Kandé non gis nga nag man man aw ma dara de man Gaston Mbengue aw ma dara mais ak ku mu manti doon ci àddina soo ma considéré wul considéré soo ma fonkul fonk ma la soo ma négligé ma dem di toog jàpp sama njaamur des yàlla parce que am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay. ça dafa bëri ay ministre yu soxor ak. ah waaw waaw waaw waaw mais kooku kooku soo ko gi soo ko gisee noonu ñeneen gisee ko noonu su amee ñooñu ñoo war a rectifier wu. parce que gënuñu fi ñoo war a xoolaat seen bopp. même même président même président. am na yoo xam ne léeg-léeg mu a jël bâton de pèlerin taxaw wax ak nit ñi wala di woo nit ñi di wax ak ñoom. waaw président mais nit la. Mm-hmm. que nit ñi ñu ngi koy topp di di rey seen bopp pour moom pour quelle raison am na ñoo xam ne tey yàlla xam na ni am na ci ñoo xam ne tey man ay nit dañuy ñëw ay kilifa ay responsable am na ci ñun ñoo xam ne liste parallèle la def am na ñoo xam ne dañoo ñëw ba ci man. parce que def man je suis parce que dafa nan ni may genn wàllu président Macky Sall dafa nan ni ñooy ndékkeendoo ñooy añandoo looy reerandoo ku léeg-léeg dañuy ñëw di ma euh, suul ci sax seen problème ay nit ñoo xam ne dañuy ñëw waaw ñun kenn waxuñu dara président woowuñu président liiwuñu président laa président laaw mais nit ki politique la ñuy def da am danga am ku baax danga gis ku bon da nga gis sulaar da nga gis dof da nga gis nit da gis façon bu ne parce que yàlla yow la moom la jël le président Macky Sall mu nekk président ñooñu ñëpp donc ci yu mel nii soo amee yëkkati téléphone am woote du la boole kenn du ma la boole directeur cabinet du ma la boole kenn maa ngi yëkkati sama téléphone wax ak yow wala ma woola nga ñëw cinq minutes partagé ko ak yow nga kontaan génn bàyyi li woon sa xol yëpp c'est mais nit ki nag su fekkee ne gisul déggul ñu banaliser ko aussi nit ku nee am nga sa sens sa sens de l'honneur soxla nga considération parce que nit ma ne ku ma considéré wul du ma la considéré man maa gën a mën a rey sama nit sama nit maa ci gën a mën a rey sama bopp man yëfu jaabur sa xeexu jaabur sa dama koy xeex ba mu mat dama koy xeex fàtte sama bopp mais parce que dama gis considération boo am ci man soo amul ci man considération ma toog jàpp sama jàpp moi j'ai mené des batailles ici pour le président Macky Sall loo xam ne kenn ñi mu ko fee def mm-hmm. kenn ñi mu àndal ak ñëpp j'ai mené des batailles j'ai affronté des gens yoo xam ne tey sama bakkan bi xajoon na sama bakkanu njaboot yi xajoon nañ mais lu ma ciy fayee léeg-léeg gis nga groupe WhatsApp boobu ñu fi doon seetaan keroog ay Gaston mii dégg nga maam président Macky Sall da koy jox ah ñi muy jox nii Gaston jógee PS fële ay Birima Ndiaye nangam na lu ma président Macky Sall jox joxuma dara. président Macky Sall joxul dërëm tous. yooyu itam man gor laa. nit ñi gisee ci combat bi parce que président Macky man maa ko bëgg a sama frère la sama rakk la. ca mi ngi may liggéeyal Sénégal donc lu ma ko mën a jàppale dama koy jàppale mais nag bu gars yi dafa ni dan ma jox ay loo xam ne dégg nga maam tey waru waruma ŋaang waruma truc j'aurais bien voulu nag mais amul. su ñëwoon yi nga ak ku mant doon. mais ndegam nag sëriñ seeg ku nu jox nga jël di ku nu jox nga jël mais mais man dama ko topp di ko liggéeyal di ci rey sama bopp. di eh, nit ñi ay kilifa di ñëw sama kër di toog ñuy waxtaane réew mi ma am ci réew mi kàddu aussi am ci influence xam sama bopp aussi bu baax na te ñàkkuma fayda ci kenn mënumaa ñàkkuloo fayda kenn mënumaa ñàkkuloo fayda ci àddina lépp lu ma ko lu ma mën a defal le président Macky Sall dinaa ko def dans la dignité dans la dignité parce que moom moom ko jaral parce que mi ngi may defal loo xam ni di ma gérer réew mi di liggéeyal réew mi loo xam ne tey mënumaa toog foofu di ko liggéeyal sama bopp kon mi ngi liggéeyal réew mi mais fekkee ne nag ay moyen la yu ñu joxe kenn joxuma dara xëy na yaakaar na ni moom le président Macky Sall yaakaar na ni jox nan moom xëy na yaakaar na ni institution yi mu joxe sax nit ñi respecté nan ko xëy na yaakaar na ni je suis à l'aise xëy na yaakaar na ni aw ma benn problème. tu es maa ngi sant yàlla. waaw xam tax non non xam nga. ku jël ay millions di ko fay ay. non non non non non <laughs> yooyu ay montage la xam nga ay montage la ak bëgg sa réew ak ay montage da ngay jël risque maag baykat biy jël gerteem suul ko ci xamul ndax dana taw ak du taw ñoo yem mm. ay montage je suis à l'aise maa ngi sant yàlla bu baax parce que gor laa am ay mbokk yu gor ñu yar ma ci ngor mais du tax ma bafouer sama dignité wala may def ñàkk fayda kenn ñemewula ñëw di dugg sama kër toppama bàyyil Macky Sall ñëw ci man wala bàyyil parti euh, defal lii defal lii defal lii euh, pour ay xaalis wala yu kenn xamul kenn ñemewula ñëw di ma di ma jéem a mais nag danaa garder sama di su ma demee ba gisuma lu ma xam ma toog jàpp sama njaabul comme ni ma jàppee sama njaabul ci élection yi sama yoon nekku du ma ci wax 2019 je me suis investi lu président yëg ak lu mu yëgul ak lépp 2019 dama ci rey sama bopp te xam na ko kenn du ko ñemee tudd kenn du ko ñemee laal di wax lu ne parce que moom personnellement sama rak la jaral na ma mais ñi nga xam ne nag du ñu jël seen téléphone koo ñu bëgg a gis du la gis kum ci désigné man sama yoon damay tëdd rek toog jàpp sama njàmm toog jàpp sama njàmm parce que nag sama dignité nag maa ko moom aussi. am am na solo. loolu loolu am solo la euh, président Macky Sall quand même kenn mënu ko génnee ci élection yi nii. Euh, yàlla def na ne par force il faut que mu def ay élections locales. Mhm. nekk na président boo xam ne ba léegi parti am ak mouvement Samm géré euh, ville de Dakar est-ce que duñ demee ci élection yi te président Macky Sall gagné ko du doon loo xam ne dafay entaché par passage am au palais de la République. man de dama koy ñaanal mu gagné laa koy ñaanal surtout Dakar dama ko fi ñaanal mu gagné honnêtement Dakar ak li ko wër lépp nag. fii Guédiawaye Pikine partout parce que fii c'est la capitale les grandes villes sax dama koy ñaanal mu gañe dana metti dana jafe lool aussi mais dama koy ñaanal man ñaan laa am parce que nee naa la sama yoon nekku ci mais dama koy ñaanal président Macky Sall am ndam parce que ndamu président Macky Sall suñu ndam la lépp te yéene moo suba bugg sayoon moom du am benn lu koy entaché wala lenn lu koy teg gàcce donc ñaan élection yi moom ñaan laa ci am dinaa ko ñaan parce que nag nit ñi aussi man nag Gaston laa tudd nag dafa def naa ci réew mi nag loo xam ne nag ñoom ñëpp kenn doon nen ma xamee kenn xamee leen la preuve dem nañu nen ma diaspora yi nen ma xamee ñoom ñëpp kenn xamee wu kenn xamee wu leen ko dem nañu États-Unis gis nañu dem nañu ay man modestie à part monde bi dañ ma xam dama xam nu ma tollu ci réew mi c'est que dama leen a yomb nit nag su la yombee xëy na doo ko teg sax fa mu war a nekk. d' accord États-Unis boobu ngay tudd moo ñu andi woon ci affaire Ousmane Tounkara. <laughs> sa xarit wedd na li nga waxoon fii nee na voilà. bi nga waxee bi nga waxee tontu la. non xam nga xam nga xam xam nga xam nga Ousmane Tounkara du ma nekk def débat ak moom. parce que ne serait-ce que wax na ko déglu naa vidéo bi sama sœur bu ma bokkal benn bàyyi. Mm-hmm. ak jabaram ay xarit lañu. donc danaa ruus sama sœur boobu dinaa ruus jabaram. nee na ba may wax ak moom. tontuwuma xam nga man du ma nekk di mbébatu rek ci ku dul tontu. ci téléphone <laughs> ci téléphone xam nga sama sœur a ngi toogoon moom nee na jabaram a ngi toogoon mais sama sœur a ngi toogoon bi wax ak moom. waaw ma tontu tam non ak ah, et yooyu amul solo heureusement aussi que la mu wax lépp ba mu paree dafa dafa doon da doon nu koy waxee da doon xutba. xutba na ci Sénégal rafetal ni moom tudde na ñaari doomam yonent bi wax lu rafet bay joxe sax ay leçon de morale ni Sénégal dono àddina bi nit ñi dono war a nekk benn kenn war lu yéene sa borom yooyu yëpp te loolu mu wax xutba yëpp c'est son contraire parce que moom mooy taxaw di saaga di ñéeg di xas nit ñi xëy na nag dafa am lu mu ciy wut nee na saa yu ko neexee gis président mag Sall su ma sañoon bis bu ne sax mu fanaan ak président su ma neexoon mu am su ma sañoon mu am lu ne su ma sañoon mu am beneen posture bu dul taxaw téye live bam tëdd ci otom bi saaga ak di xaste man du ma ko xas ndax jabaram mais li wóor ba wóor mooy dama doon wax ak moom yi doon tontu su ko neexee nag mu toog ku sax weddi ko et puis gas wax ak Gaston muy tontu ngeen di wax waxante mais yàpp yaar yéen def man ba ma ñëwee fii aussi la ma wax le contraire moom sax laa doon yëkkati moom laa yëkkati ni nii dañ ko tooñ dañ ko nangam nangam dañ ko war a considérer comme ku baax la comme tous les sénégalais la bëggal sénégal <laughs> xaw ma ban muus la piqué que muy wax wax yooyu or que suy wut bës man mii Gaston soxlawuma live soxlawuma site soxlawuma télévision pour wut bës man bës bi ma am kenn ëpp ma bës ci monde bi dama ko liggéey mm-hmm. dama ko liggéey ci sama liggéeyu bopp benn mais ci làmb ji beneen parce que ñoom dañ defe ne xëy na làmb laay liggéey je ne suis pas promoteur de lutte seulement mais làmb ji def naa ci loo xam ne tey jaay naa ko le monde entier tout le monde respecte le Sénégal par à travers la lutte ñëpp ko bëgg tey lu président Macky Sall bi mu demee États-Unis gis na la fa mbëri jariñ ak feneen ak feneen ak feneen làmb ji mbëri yi duñu ay baadoolo mbër ay noble lañu te man tey am naa ci bës bokk bës bi nit ñi wut ci ay live ba ki ay kii man am boobu dama ko liggéeyal sama bopp ça m'a coûté ñu bëri dafa na ni j'ai gagné beaucoup d'argent là ma gagné ci c'est normal même su ma ci pertee jaay naa ci Sénégal donc tey kenn du wax ci Sénégal kenn du wax Sénégal ci tuddoo Gaston Mbengue loolu loolu moom mënatu nekk nin ma xamee ànd naa fi ay délégation équipe nationale ñu dem ci ay dëkk ministre taxaw kenn xàmmeewu leen population yëpp topp ma muy États-Unis gii muy Dubaï gi dana dafa me star marché en star ñëpp dañu li ma leen ma fa photo ëpp na des milliers de photos ñëpp bëgg a photo man lool ku mu doyul dara loolu doy c'est pas donné à n'importe qui c'est pas donné à un parleur à di saaga di wax di xaste di yuuxu dama def lu ko jaral nit looloo looloo tax man wutuma bës bës bi bës bi ma dama ko liggéey. soxla réseau social. so non soxlawuma dara. dama ko liggéey nan ma bee boo sax ñu taxaw nan ma TikTok nan ma saaga nan ma def yëpp yooyu wax ju bon dëkkul foo mu jëm. foo mu jógee la cosaanoo. man xam naa sama bopp. xam naa samay mbokk xam naa foo cosaanoo ku weddi demal Louga ku weddi demal Boqal ca Waalo ku weddi demal Ndànd man la ma Ndànd la. xam naa fu ma bokk. waaye est-ce que yaa déggoo li ma la dana metti lool dana metti. au niveau national au niveau national dana metti. dana metti mais li may ñaan man président Macky am ci majorité. moom laa koy déggoo mën la ñaan rek laa de amee man li ñu toll. gis nga en deux mille dix neuf ba mu bëgg euh, présidentielle damaa taxaw rey sama bopp. li mu yëg ak li mu yëgul yëpp def ci lu ne. est-ce que du ci élection yi soxla. non ma defe naa ne. soxla nañ la de. ma dama dama leen a yomb. waaw comme ñoo ngi lay ci ay dama leen a yomb <laughs> mais man ku ma jëw it ku ma jëw feeñ te da ngay weeru parce que ban may jëw affaire bi di kat ba ci man <laughs> dama doon jéem a weer ma weer leen. merci beaucoup merci beaucoup. lan ngay tëjee. Ah, sant yàlla di di gërëm ñëpp. et tey. démb def nañ ko ci journal bi man la du ma toog fi ba jógee bi ci wax bu ma waxu dama ciy def sama participation ci làmb ji le premier janvier xam nga ci la ñuy ci la ñuy fêté même trentième anniversaire u Gaston production. kon làmb bi yoon su neexee yàlla yoon tamit ndax yàlla rek xam. Mm-hmm. mais su neexee yàlla yoon tamit le premier janvier ci la ñuy ci lay tombé ak les trente ans de Gaston production. Mm-hmm. El Hadj Mansour mbay di ko muy drapeau muy nekk 48 euh, heures avant l'ouverture de la campagne de des collectivités des locales ma jël affaire bi nag parrainé loo ko Amadou Ba mi nga xam ne Macky Sall ko élevé en coordonnateur de. benn Bokk Yaakaar benn. national. comme Dakar lañ koy defee ma jël ci parrain yi def ci Diouf Sarr nga xam ni kon li may wax ci ñaan gi dëgg la. def ci waaw noonu non d'accord def ci Aliou Sall en tant que parrain moom itam def ci Lat Diop en tant que parrain def ci CTB euh, ba de du port bi nga xam ne moo nekk Jëppal def ci Zahra yaan Thiam bi nga xam ne moo nekk Sicap ñooñu laa ciy def jiital ci nag le ministre des sports Matar Ba. nga parrainé ko Sénégal du mën a am ñun boobu tey nag fii sax laa la koy waxee bi yoon moom dama lay invité naa leen. da ngeen di bokk ma kooku te xam nga du ma wax lu lu ma dul def <laughs> mais da ngeen di bokk ah, da ngeen di bokk da ngeen di bokk da ngeen ñëw wax leen da ngeen ñëw ñu toog mu wax leen modalité yi ñuy bokke yi ngeen di defee yépp te du ngeen fay dara <laughs> non du ngeen fay dara mais da ngeen da ngeen da am terme yi ñuy bokke ak li ñuy def yépp parce que ce sera en pay-per-view euh, voilà donc daal donc làmb ji làmbu presque làmbu président Macky Sall la parce que candidat bi yi nga xam ne Ndakaaru gii mu gën a ñooñu la ñuy jël ñu pare parrainé bisu El Hadji mbay boobu. loolu am solo dana am solo lool su neexee yàlla maa ngi leen di sant di leen gërëm yàlla nañu ko fekkee jàmm mais le premier janvier danañu gis euh, lu rëy a entre Balla Gaye 2 ak Bombardier su neexee yàlla avant le premier janvier am na avant première le 28 novembre entre Pakala ak euh, Forza drapeau Maguette Sène bu Malicounda le maire de Malicounda di sama di et ci la Zos retour de Zos ci lay bëreeg Aliou Seydou. Zos moom mu ngi ah, dafa dafa toogoon am beneen. beneen vie dem ci vie boobu dellu si waat. ñaata million euh, moom kenn du ko tudd nañuy noppi rek nañuy noppi rek euh, loolu sutura la parce que xaw ma sax yow lu lay fay Sénégal. Hmm. <laughs> mais du ko wax ci plateau. <laughs> merci beaucoup jërëjëf merci